pouvez interpeller l'homme politique ak le chargé des élections parce que depuis ñu euh, ñu ne Bassirou mooy candidat ba tey ñaari débat posé wu nañ benn bi mooy euh, il est en prison ñaareel bi mooy dinañ code électoral dafa am lu mu wax ci situation ex Pastef bu ma ne ex Pastef mooy pour nga gën a xam li nga bëgg a wax ñi fa nekkoon membre mënuñu bokk benn élection présidentielle waaw xam nga loolu laa doon expliquer ba décision Cour suprême bi wa ñëwee rek xam nañ ne tout ce qui reste en réalité le temps joue contre eux et c'est tout à fait normal moi mm-hmm. je pense que c'est tout à fait normal ñu am intelligence investir keneen en la mm-hmm. personne de Diomaye maintenant la personne de Diomaye en réalité a posé moult équations mhm. ñenn ñi nee attention il y a la dissolution de Pastef mhm. ñenn ñi sax ils ont montré que la dissolution de Pastef frappe de plein fouet ñi nga xam ne ño nekkoon waa Pastef mhm. mais moi je dis ici d'une manière claire et nette loolu que c'est faux ah. loolu c'est absolument faux xam tax parce que le débat se pose non non waaw tout débat qui se pose il faut que ça soit conforme à la loi léegi daf ko wax nga nekk à jour avec la loi et que c'est-à-dire que gis nga le code électoral c'est le code qui régit les élections le code électoral c'est la législation spéciale en matière électorale donc le code électoral a été très clair pour qui peut être qui est éligible mhm. et qui peut perdre son éligibilité par radiation wala décès wala une condamnation définitive ces trois situations ne frappent pas Diomaye l'article L57 bi ñuy génnee di expliquer ne moom moo nekk troisième alinéa bi mhm. buy frappé Diomaye ce n'est pas le cas xam nga il faut tout cesser toute supputation pour dire le droit il faut dire le droit qu'importe les bannières mm-hmm. politiques yi nga mm-hmm. bokk et que pose un parti légalement formé une coalition de partis boo xam ne dafa légalement formé ou bien candidature indépendante maintenant la définition d'une candidature indépendante ñun ñëpp xam nañ ko quelqu'un qui n'a jamais fait la politique et qui a cessé des activités politiques pendant un an Diomaye n'est pas dans ce cas def na politique ba pare cessé wul ses activités mais am na benn terme bu non en réalité xam nga bu ñu nee coalition de partis légalement constituée en réalité la coalition c'est un conglomérat de partis simplement mm-hmm. et que chaque parti doit être détentrice en tout cas détenteur de récépissé mm-hmm. donc les partis yu ko bokk bu ci nekk bu amee récépissé valablement reconnu par la loi ainsi de suite donc c'est une coalition. mais dans le cas présent euh, Diomaye pourrait être investi par qui loolu laa bëgg un parti légalement formé ou une coalition légalement parti boo xam ne bokkul. c'est possible foofu la nekk en fait. xam nga lu tax c'est-à-dire que les gens ont fait une sorte de confusion. Mhm. en réalité entre la personne de Diomaye et l'entité qui mhm. c'est l'entité a été dissoute c'est une personne morale. ça ne les membres. Diomaye est une personne physique. donc moom son éligibilité ou son inéligibilité dépend du code électoral. Mhm. et que lorsque lui il n'est pas frappé de radiation ni de condamnation définitive. il n'est pas décédé. Okay. donc loolu moom tey rempli na les conditions article 57 parle d'un parti légalement formé donc Pastef ne peut pas être rangé dans ce sens. Mm qui a été dissous. donc il y a 300 et quelques partis yoo xam ne Sénégal dañu yor seen récépissé donc ce qui veut dire que tey DGE jour bi Diomaye di dem di jël fiche am. Mhm. parti légalement formé moo mandataire. à la mhm. personne de Diomaye. bu doon dafa nekk situation d'inéligibilité duñ ko jox fiche kon. non non parce que ñoom ñi fa nekk xool nañ fiche bi. le fait jox ko rek ça prouve que jox ko rek c'était quelque mm-hmm. chose. c'est vrai c'est c'est un aveu mm-hmm. mm-hmm. maintenant politiquement parlant ñoom ñoo toog bañoon a parce que dañ doon anticiper si dana xawi d'accord maintenant nag ci li ñuy wax ni légalement formé gis nga ce rien qu'un adverbe qui signifie conformément à <laughs> a <laughs> personnes en, réalité extérieures et non extérieures extérieures parce que bokkuñu bannière politique mhm. non extérieures ñoo bokk benn coalition mais moi ce que je voudrais euh, euh mhm. c'est-à-dire que il ñun ñooy enseigner la loi en première année mhm. ñun ñooy jàkkaarloo étudiants yi ñooy leen la règle de droit a des caractéristiques ñooy leen sa permanence sa coercition sa généralité caractère obligatoire bi mu am ak caractère en réalité coercitif bi mu am mhm. donc loolu noonu suñ koy jàngalee on pas avoir une loi en réalité dirigée vers une personne ñu ne lan la wax ci Diomaye le code électoral ne parle pas de mhm. Diomaye ne parle pas de Massamba nii ma dem parle des électeurs mhm. et pour être électeur xam nañ ko comment faire pour perdre son éligibilité xam nañ ko maintenant par rapport ak sa ta situation de détention ñi ñi soulevé il n'est pas encore jugé. il est il est innocent jusqu'à preuve du contraire il est même pas en instruction. Mm -hmm. il bénéficie de ce qu'on appelle la présomption d'innocence yu bokk parmi les principes directeurs de la procédure pénale en matière pénale la présomption d'innocence du début jusqu'à la fin même que jusqu'au jour de jugement tant qu'il n'a pas été condamné d'une manière définitive il bénéficie de la présomption d'innocence donc dans ce cas de figure dama ñu respecter li nga xam ne loolu la loi di teg pour la postérité mhm. parce que nekkul pour ñun nous nous allons disparaître tôt ou tard d'autres personnes occuper les stations te mhm. aujourd'hui nous sommes très malheureux surtout ñi nga xam ñun ñoo yëngatu ci affaire loi affaire droit des théoriciens et les tax. Mhm. c'est-à-dire que c'est devenu un c'est devenu benn bras armé boo xam ne nit ñi dañ koy utiliser à et foofu noonu aussi quoi qu'on puisse dire même ñi nekkoon opposition la loi n'était pas bon la loi était là dañ ko doon utiliser suñu ñëwee encore dañu jàpp ni ñoom ñu doon kaas ñoom ñoo ko utiliser mais ñu ñii nañu def nii te telle sorte que le jour où buñ jàpp ni gagné nañ nañu respecter la loi pour le moment Diomaye en réalité ne perd pas légalement ci conformément la loi mhm. aucun droit perdre gu ko merci bu ñu jëlee article L57 am na nag ñuy suscité di indi article L125 boobu lu mu wax article L125 en des neuf pièces yi nga war a déposer en dehors des conditions yi nga xam ne range nañu pare dafa octroyer le juge constitutionnel un pouvoir large d'appréciation sur tout tout moyen qu'il jugera utile. Hmm? loolu fourre-tout la de. qu'il jugera utile la mais man dama ne qu'importe la conviction intime il faut que ça conforme à la loi. sinon ce serait de la forfaiture et de l'arbitraire.